dal leen jàmm ci xibaar yéene yi nga xam ne rek moom lay defaraat ak jekk-jekkal yi nga xam ne rek moom la ñu mal rawatin nag élection locale yi fekk jamono joojee critique yéene kaay duñoo xamal ne kay loolee leer na nañ na ñi ku bees koo xam ne ne kay ne jamono ji nii nga xam ne a jàppe PVD ak ñun fa ñu ko bëgg a jàppe mbirum diine ji ñu seere politique bi les échos yéene kaay duna xamal ne ji nag ku jëg Sénégal coow lu bari na lool ndax kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko nga xam ne nag am na ci ñoo xam ne jamono ji ñoom kay ñooy moom de day mooy seen wujj moom la ñuy moom la ñuy attaqué des nag njiit mi Macky Sall moom moo leen ne ne loolee nag dafa war a dakk ci réewum moom Sonko Sonko moom njiit réew ne nañ ko caa dugal xaalis googee fan la nekk moom Ousmane Sonko moom lay laaj ci fekk jamono jojee laaj ci duñ yéene xamal ne song yi nga xam ne kay Ousmane Sonko euh, jot na ko koo song kii nga xam ne rek moom moo di Bougane Gueye Dany moom Sonko li mu def mënoon naa ñàkk maanaam daal si song Bougane Gueye Dany Bougane moo di mbënd mi nga xam ne moo gane ji yu Sénégal a moo di ñoom lan moo la ne teelaaw xuus nga xam ne rek ñooy jàng jànkonte lay jafe-jafe ñu seet leen yéene kaay gi du ñu ñoom kay jamono ji loolee bu amee bokk na ci li ko sabab moo di maanaam bu ñu demee boo mu danañ leen laaj milliards yi nga xam ne rek dugal nañ ko ci mënd mi maanaam daal yooyee fan la dugg yéene kaay gi du ñu xam ne bokkul ci lii nga xam ne rek tax na ñoom mënuñoo dem foofee fekk jamono joojee direct news yéene kaay di xamal ne xaalis gii nga xam ne rek jotoon nañ koo dugal ci wàllu neexee mën naa laaj ñetteelu mandat eh waaye moom Abdoulaye Matar grand serigne de Dakar moo yëkkati kàddu yu ni mel enquête yéen kaay xamal ne maatam kay jamono ji nag ña ngay jàppalante seen biir la tribune yéen kaay xamal ne maanaam daal monsieur ba Mabakumba kay ñami yoot moo di diggante soldat yi nekkee te frontière Sénégal ak Gambie ndax kay démb am na ay jafe-jafe yoo xam ne jotoon naa am ay jàppante ay tuyi tuyi mel ni sabaru fetal directeur général bu Senelec mi ngi woon ci dëkk bu sell bi di Touba ci visite de terrain bi nga xam ne rek moom la doon amal moom Pape Demba bi tey di xam ne ne daanaka daal benn milliard ak lu teg dugal nañ ko ngir gën baaxal lu jëm ci wàllum réseau bi gannaaw naka ba muy inauguré ay poste courant yu ñu fi jotoon a def muy xam ne nag jamono ji njiitu réew mi Macky Sall moo leen sant fast track maanaam daal ñu gaawal yëf yi fekk ci dëkk bu sell moom la ñuy wax Siré Sall yéen kaay gi dañoo xam ne moom kay ay xale yu ndaw la jàpp yoo xam ne seen at fukk ak ñeent ba fukk ak juróom maanaam yóbbu leen ci benn auberge di leen def naka sudul noonu di leen proposé ne leen dina leen jox xaalis wala sax mu jox leen not yu baax e waay